asalaamaaleykum tey nag dañuy ñëw ci benn sujet mooy li nga xam ne moom lañuy ñuy wax tenj mooy li nga xam ne jigéen moom lay def boroom këram su fi bàyyi tubaab di ko wax veuvage waaye li ñuy jiital rek mooy ak cant ci lu bare bari loo xam ne ñoo ngi koy seetlu wax dëgg yàlla mën naa depuis ay mois waa sax depuis daaw mooy ci video yi yàlla dogal na ñu baree baree bari ñu ngi ciy yeewu léegi te yeewu gi mooy lan mooy li nga xam ne moom la ñuy wax di joxe référence yi nit ñi di dem di ko vérifier seen bopp di ko gisal seen bopp di xamal seen bopp seen borom li nga xam ne moom la jàngaleel bopp maanaam di xamal seen bopp lan mooy dëggi dëggi islaam wuuteeg li nga xam ne moom lañ leen doon jàngal nga xam ne ay idéologie la te bàyyiwuñ ci woon xel te xamuñ ko woon mu nekk nag loo xam ne wax dëgg yàlla lu am solo la ndax téereb yàlla mooy message bu yàlla mooy li nga xam ne mooy jàngale diine yi yàlla bi ci téere boobu la daan sukkandiku di wax ci téere boobu la daan sukkandiku di jëf téere boobu tamit moo ko taxoon a doon ab messager moom ci boppam nga xam ne yonent bi téere bi moo ko tax a doonub yonent téere boobu moo taxoon suñ borom yónni ko téere boobu la daan jottali amul leneen lu ko borom bi daan jottaliloo mu jëm ci nit ñi lu dul la ca téere bi te loolu yàlla wax na ko ay yoon yoon yoon ci biir téere bi ci bopp kon nag képp koo xam ne yàlla defal na ko ndimbal ba mën a xamal boppam li yàlla jàngaleel boppam ba mën caa tënku yeewu ca mën caa yee njabootam mën caa yee yeneen i nit wax dëgg yàlla loolu moom sant yàlla gu mat sëkk la sa te it sant yàlla la goo xam ne amul yemuwaay mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla dañ ciy sant bu baax a baax a baax tenji nag su ngeen ñëwee ci alquran lu yomba yomba yomba la yàlla lim ci jàngale nekkul lu compliqué lu baree baree bare lu ci jafe loolu ay mbiru aada soo ñëwee ci suñ dëkk yi jigéen ci fi borom këram bàyyeeku nga xam ne daanaka fiitloo gañ koy fiitloo ay noppam ak mooy takk nopp ya ba mu dëgër ak bëri na ay wax yoo xam ne dañ ko cay wax yooyu yëpp daanaka mbiru aada la waaye du mbiru diine suñu demé ci alquran yàlla lim ci wax moy wal ladhina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arbaata ashhurin wa ashran fa ida balagna ajalahunna fala junaha alaykum fima faalna fi anfusihinna bilmaarufi wallahu bima taamaluuna xabiir xam loolu mooy li jiitu yàlla di wax ne su amee ñoo xam ne dañoo faatu ci yéen comme yéen way gëm yi te bàyyi fi ay soxna mu ne soxna yooyu nañu yeeru ci seen bopp mooy nañu bàyyi xel ci seen bopp ñeenti weer ak fukki fan mu ne nag léegi àpp boobu su matee du aaya ci ñoom ca la nga xam ne dañ koy def du aaya ci yéen ca la nga xam ne ñoom dañ koy def ci seen bopp nga xam ne ñeenti weer yooyu ak fukki fan loolu mooy durée bi nga xam ne jigéen ci la war a maanaam ténj ñeenti weer ak fukki fan muy quatre mois dix jours quatre mois dix jours yooyu nag su matee ku jigéen ki nag la muy def ci boppam ci njekk loolu ci moom la te yàlla moom lu mën a xew moom ku dañ kumpa la ci li nga xam ne moom la ñuy jëf nga xam ne ku jigéen ki loolu la ko yàlla sant lu ñu mën a def nag ci diggante bi nañ xam ne yàlla moom ku dañ kumpale ci linga xam ne moom la ñuy jëf kon lii mooy téñ durée bi mooy quatre mois dix jours jigéen gi nag su tollee foofu ay nit mën na ñëw ñëw comme niñ koy waxee fii suñ société di wax ne a ah, summi naa sama dàll wala nangam loolu tamit yàlla da cee wax ci ni nga xam ne noonu lañ ci war a doxale yàlla wax ne wala junaaha aleykum fii ma arattum bihi min xitbati nisaa yi أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا متكنة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم mu nekk nag lu am solo loo xam ne même am na leneen loo xam ne sax bëgg naa ko ci wax incha allah ci lii ndax yàlla day wax ne nag léegi ku jigéen ki su nekkee ci tenj maanaam koo xam ne xëy na xemem na koo jël après wala bëgg na koo takk wala lu ci mën a doon ci loola yàlla day wax ne du aay ci yéen nag ci li nga xam ne da ngeen koy gaaral ci ñoom nga xam ne léegi ku jigéen ki comme ni ko Sénégal yi di wax ah su mi naa sama daal xam da ngay gaaral wala junaaha aleykum fi ma arrattum bihi min xitbatin nisa benn du aay ci yow nga gaaral ko du aay ci yow it maanaam bëgg gi ko bëgg jël ginnaaw gi it nga nëbbu ko ci sa bopp yàlla nag mu ne moom xam na ne di ngeen leen xalaat waaye nag bu leen leen dig dara ci nëbb di ñëw di am looy ni nëbb moo xam message ngay bind wala lettre wala lu mën a doon yàlla mu ne bu leen leen dig dara ci nëbb lu dul ne ngeen leeni wax waxu njekk yàlla yit mu ne même soo gaaralee ak lu mën a doon comme loolu mu wax ne loolu aayul ci yéen mu ne bu leen dogu ci fasuk sëy bi lu dul ne àpp booba dafa ma lu dul ne ma àpp ba dafa mat wala ta'zimu uqdatun nikah xatta yablugal kitaabu ajalahu nga xam ne bu leen dogu ci fasug sëy lu dul ne ñeenti weer ak fukki fan yooyu dafa mat yàlla nag mu ne xam leen ne yàlla moom xam na li nekk ci yéen te mu ne na ngeen ko moytandiku moom yàlla ndax moom yàlla kat moom kuy jéggale la waaye it ku dëniirlu la dëniirlu mooy koo xam ne Dafi nekk nek melni ku fi nekul comme niñ koy waxe ci demé ci kër yi nga xam ne dañ naan waa da xam ne su dara xewé ñu na wa xara borom kër gi fay newut yalla nak mu ne mom ku denir lu xam ku fi nek la melni ku fi nekul li moy li nga xam ne mom la yalla jangale ci teñ ku jigen ki ñenti weer ak fukki fan la wara mom moy li nga xam ci la wara teñ ñi nga xam dañ ko bëgg doxali ni wi la ci yalla jangale mu nek lo xam ne lu leer la dafa am nag beneen aaya boo xam ne dafa ñëwaat ci alquran te sax balaa boobu sax damay ñëw ci maanaam benn point boo xam ne mu ngi ci li ma doon wax léegi ci ginnaaw loo xam ne yàlla dogal na bëgg naa cee wax depuis ay at yu xaw a yàgg mooy dafa am benn genre phénomène boo xam ne dafa koy seetlu léegi dafa commencé bari xaw ma ndax nit ñi dinañ koy bàyyi xel wala déet mooy léegi dafa dafa bëri jigéen ñoo xam ne suñu amee ay doom yoo xam ne xëy na ñu ngi toll ci adolescence seen papa bàyyi koo fi ci lu ci bari benn seeni doom dañuy wax ne seen yaay warta sëy ak keneen te souvent da ngay gis jigéen ñoo xam ne duñ ay mag ndax man gis naa ci ay cas mais damay gis ne loolu c'est tout à fait un problème maanaam jigéen sa borom kër su fi bàyyeeku ba nga jàpp sa ma ba nga tënj ba noppi amut dara lu la tee nga amaat beneen borom kër waajur wi tamit ñoom it loolu war nañ cee wax ak seeni doom ndax gis naa ci ay cas yoo xam ne doom yi day mel ni dañuy imposer seeni yaay ngir ñu bañ a amaat beneen borom kër te loolu tamit problème bu mag sëkk la ndax seeni yaay yi yàlla xaraamalul ci ñoom ñu amaat beneen borom kër seen waajur wu góor wàcc na liggéey loolu dogalub yàlla kenn mënu ci dara mais moom ab dundam taxaw nga xam ne ab dundam nekkul loo xam ne day taxaw sufi fi boroom këram bàyyi ko jigéen ñi ñoom it loolu war nañ di ci wax di wax ak seeni njaboot ci loolu ndax loolu lu ci bari ay lor lay jur ci seeni yaay suuvent bëri na ay problème yoo xam ne dinay juddu moo ay problème de santé wala nangam ndax dafa am yoo ne ay loo xam ne ay besoin naturel la yàlla moo ko bindee ak nit léegi nag comme yàlla dogal na du lu xaraam ci yow bul nangu say njaboota ak wala kum mën a doon di ko xaraamal ci yow même sa borom kër bi doon dund naan su ma fi deewee soo suma deewee maam bul sa yaat keneen nangam yooyu taxawul ki dund yaa ngi dund ku dee dee lu loolu mooy àdduna comme ñenn ñi di wax naan ah ñun suñu waajur moom kilifa la wala nangam su fi bàyyi ko suñu yaay warul sa yaat keneen loolu caaxaan munu ko weesu loolu yàlla ci yonent bi képp la ko waxoon waxoon ndax lan dafa waxoon na ay soxnaam suñuy yaay lañu yàlla dafa wax ne nabi bi moo gën a yey way gëmi ci seen bopp te mu ne ay soxnaam suñuy yaay lañu loolu fala yem keneen ku mën a doon lu nga ci mën a wax ak ay kii kilifa la kii nangam la kii nangam la gis ngeen yooyu ay nax la kilifa mooy lan rawatina ñoo xam ne dañuy wax ne ay kilifa lañ te li yàlla wax sax xamuñ ca woon dara ay mbiru organisation la tëral ko ay mbiru aada tëral ko nit ñi jàpp ne loolu dañ caa war a topp di ci dox te loolu du daraay diini loolu mu nekk lu leer loo xam ne lu kenn ku ci ne war a xam la yonent bi ci boppam li yàlla wax ne ay soxnaam suñuy yaay lañ soo leen ba tey tamit ci suura 33 verset 53 ci la yàlla di wax ne wala an tankihu azwajahu min baadihi abadan nga xam ne tamit yàlla dañoo tere ñu takk ay soxnaam ci ginnaawam loolu falayam leneen lu mu ci mën a doon lune ne yëfu nit ñi la waaye jigéen ñi ñoom seen bopp loolu war nañoo fexe ba kenn du leen ci tënk ndax loolu ay jafe-jafe képp la leen jural amul benn njëriñ te yàlla tegu leen ko damay wax ne nag nit lu la yàlla lu yàlla xaraamalul ci yow bul nangu ku ko xaraamal ci yow su fekkee ne xëy na comme ni ñu ko waxee peut-être maanaam nga nekk ci benn tristesse wala nangam ba tax nga wax yooyu tamit ay erreur la am na ñoo xam loolu moo leen dugal seen borom kër bàyyeekoo ne fi ñu ne ah dootuma sa yaat ak keneen nangam mu bàyyeekoo fi nga dem ba mu yàgg ba dem ba rees nit ñi di dem di doxi seen soxla di dem ak a ñëw nga toog jàkkaarloog la réalité de sa monde nga xam ne ah man kat la ma waxoon kat loolu kan jafe-jafe la. moo tax nit li may wax lu la yàlla tënkeewul bu la ko kenn tënkee soo décidé sa bopp na yow doo ko def yow sa décision bopp la mais loolu sax bu ko wax à l'avance yow la na nekk sa décision nga fas yéene dund ci loolu waaye lu la yàlla tënkeewul bul nangu ku la ko loolu tamit lu mat a bàyyi xel la mu am nag beneen point boo xam ne yàlla da ko waxaat ci wàllu jigéen boo xam ne borom këram dafay bàyyi ko wala koo xam ne maanaam ko koo xam ne dafiy bàyyi ko balaa mi fi bàyyi ko mu def benn genre testament boo xam ne day jëm ci ay soxna li nag dafa nekk mbir moo xam ne presque du ngeen dégg nit ñi du ko tudd te lu tax duñ ko tudd moo li may wax souvent gars seen diine bi ci seen arrangement dafa mel ni comme góor ñi seen arrangement wax nangam ci lay dox parce que yàlla dafa am beneen aaya bu wax loo xam ne testament la mu jëm ci jigéen ñi nga xam ne seen borom kër dafay bàyyi ko nga xam ne loolu seen borom kër ci boppam moom moo ko war a def léegi su nit dañoo ñëw ne aaya bi ma njëkk wax bi nga xam ne mooy wax ci durée ténj bi mi ñeenti weere fukki fan aaya boobu moo man suuxal aaya bii may bëgg a wax mooy aaya bi ma wax te muy wax ci durée ténj moo abroge aaya bii may bëgg a wax te ñaari aay bokkuñ ci liñ jëm aaya bii day wax ci durée ténj aaya bii di wax ci testament léegi nag xam naa ne ñoom fa ma faal na fii anfusihinna yi nekk ci ñaari aay ñu ne léegi aaya bu njëkk bi moom mooy abrogé aaya bu mujj bi alors que aaya yàlla bi mu waxee ci fase ba nopp dafa dem ba ginnaaw gi mu ne jigéen ñi nga xam ne dañu leen a fase ñoo ngi koy wax ci video bu ñu mujjee def fan yi maa ngi wax ne aaya boobu du may faral di dégg nit ñi di ko wax parce que comme loo xam ne luy génn ci ñoom la di dem doo dégg ñu koy wax aay bii tamit comme loo xam ne tamit ginnaaw gi loo xam ne dañ koy génnee tamit di ko def du ma dégg ñu koy wax te aay bi nga xam ne mooy wax ne jigéen ñi nga xam ne dañu leen a fase seeni borom kër dañu leen a war a jox dara walil mutallaxaati mataaun bil maarufi yàlla mu ne xaqan alal muttaqin jigéen ñi nga xam ne leen a fase dañ leen a war a jox dara loo xam ne ak neexal la ci njekk yàlla mu ne loolu warugar la ci ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel yàlla te aaya boobu du ngeen dégg ñu ne aaya bi moo ko abrogé mais du ngeen dégg ñu tudd ko mais aaya bii di wax moom ci jigéen su fi borom këram bàyyi ko benn testament boo xam ne waroon na koo def bien avant boobu dañuy wax ne aaya bi wax ci durée tenji moo ko abrogé aaya mujj bi day wax ne wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruuna azwaajan وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم تلاي دوغ اندي وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين لا lan mooy seen problème mooy ni ñuy dogot parce que ñaari aay yi yëpp ay disposition la yoo xam ne yàlla da koy jàngale si kii borom këram suñu bàyyi ko benn testament boo xam ne da koy def pour ginnaawam kii tamit borom këram su ko fasee loo xam ne tamit da ko koy jox su waree dem nga xam ne ñaari ñoo bokk ci sens biñ jëm bii jëm ci ki nga xam ne borom këram dafay bàyyi ko ñu ne dañ koo abrogé bee nga xam ne moom day jëm ci borom këram suñu bàyyi ko boobu duñ ko sax tudd man boog du ma ko dégg man te lii yàgg naa caa te ba ma ca dalee wax ak léegi tamit yàlla dogal na musuma dégg ku ciy wax fii ci réew mi moom musuma ko fee dégg ne jigéen soo ko fasee daa am loo ko war a jox suy dem ndax fii jigéen soo ko fasee daanaka xuloo wax xeex lay doon te loolu mu nekk problème bu mat sëkk te loolu tamit ci lu ci bari noo lay demee yàlla day wax ci aaya bii ne ñi nga xam ne seeni boroom kër dañu fee bàyyi koo ci ñoom te bàyyi ay soxna mu ne ñooñu maanaam boroom kër yooyu dañoo war a def ab testament boo xam ne dafa jëm ci seeni soxna testament boobu lan la mu ne mataan ilal xawli xayra ixraajin nga xam ne comme par exemple su fekkee ne sa boroom kër dafa am kër te yooyu kenn du ko wax parce que dañuy wax ne aaya bi dañ ko abrogé fekkee ne seen boroom kër ci misaal balaa mi fi bàyyi ko dafa war a def benn testament su fekkee ne dafa am kër testament ba day defee noo xam ne da leen di bàyyil ab neexal boo xam ne day jëm at neexal boo xam ne day jëm at comme noonu mu waxee neexal ci fase bi ci aaya ba ca topp ci lu dul nag ñu leen di génnee nga xam fekkee seen borom kër dafay bàyyi ko bàyyi fi kër testament boobu da koy defe noo xam ne yéen kër ga jigéen ñi muy soxna yi kër ga dina fa dinañ fa toog at lu ñu leen di génnee kër ga dinañ fa toog at ludul ñu leen di su fekkee nag jigéen ña ñoom ñoo génnal seen bopp su boobaa loolu di du aay ci ci li nga xam ne ñoom dañ koy def ci seen bopp fekkee ñoom ñoo génnal ci yéen li nga xam ne ñoom dañ koy def ci seen bopp ci njëkk nga xam na jigéen sa borom kër balaa mi fi bàyyi ko mu day def testament na su fi bàyyi sama soxna yi wala soxna si donte am na njaboot wala mu am ay soxna soxna yi nañu leen bàyyi ci kër gi at nga bàyyi leen fa bàyyi leen li ñuy dunde bàyyi leen fa bàyyi leen li ñuy dunde xam nga testament def nañ ci vidéo di wax na yàlla da ko jàngale تبير القرآن تتسما مو جيتو لنيو وح ميراس تسما مو جيتو لنيو وح ميراس تسما دفا ورطي نيون كم نيغا خمينا كور نون لا وريتي نيون ليالا وحنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف هما تسما دفا ورطي نيون comme ni koor waree ci ñun mais gis ngeen ab xadis lañu indi ne moo abrogé li yàlla jàngale ci testament lu ëpp fukki aaya ñu dagg ko sànni ndax ab xadis loolu vidéo bi ñuy wax ci testament ku ci dem da ko ca fekk mu nekk lu jéggi da lu ëpp fukki aaya ñu dagg ko sànni ndax ab xadis ci seen xadis yooyu nga xam naa ay sos la yi ñuy sosal yonent mais ni yonent bi moom day jàngale lu wuuteeg li yàlla jàngale mu nekk lu jékki daal yàlla nag fii muy wax ne góor balaa mi fi bàyyi ko ci ki nga xam ne am na moyen xëy na am na kër wala am na moyen na def testament boo xam ne ndax loolu yàlla loolu lay ci kooku lay am mooy ki nga xam ne am na ay moyen mën ko fee bàyyi ki nga xam ne am na kër mën ko fi bàyyi am alal nga xam ne dafa fi bàyyi kooku lay day yàlla day wax ne day def testament mu jëm ci ay soxnaam muy ak neexal koo xam ne day jëm at ci lu dul ñu leen di génnee nga xam ne kër ga bala ñuy wax ne miraas day fekk ne at moomu mat su fekkee ne jigéen ñi dañ faa toogal seen bopp fekkee ne nag dañoo dem ba waxtu wu leen neex ñu ne ñoom dañuy génn yàlla mu ne loolu du aay ci yéen ci li nga xam ne ñoom dañ koy def ci seen bopp ci njëkk nga xam ne jigéen ji su jëlee su jëlee décision boppam génn loolu moom am na ci droit loolu kenn du ko ci blâmer su boobaa ñoom lañ war a def na ginnaaw gi mën nañ koo def waaye wasiya boobu muy testament boobu góor gi da ko war a def ngir ay soxnaam yi nga xam ne mën na leen fee bàyyi ginnaaw gi su ko defee mu nekk testament boo xam ne day jëm at yoo xam ne jigéen ña dañ fay nekk nga xam ne la war ca ñoom day bokk ca testament ba te kenn du leen génne mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla dafay lu am solo lool loo xam ne nit ñi su ngeen ko doon wax wala ñu leen doon bàyyi loo xel njàngaleem yàlla dinañ gis islaam maanaam day rafetal ba rafetal ginnaaw ama nit ki day dund li muy dund ba bàyyi ko fi ña ko yàlla booyaloon ñu doonoon ay soxnaam mu am sax ak rafetal goo xam ne da ko cay duggal mu doon loo lu ñuy sàmm la ginnaawam mais gars yi dañuy ñëw dagg sànni ndax mbiru alal la te dem leen ngeen gëstu gars yi ñuy jàngale te mu jëm ci wàllu alal ak li ñuy jàngale te mu jëm ci wàllu jigéen li ñuy jàngale mu jëm ci wàllu alal lépp daanaka ci seeni propre intérêt lay jëm muy góor lu ñuy jël lu jàngale mu jëm ci wàllu jigéen presque lépp ci seen wàll lay jëm muy seen propre intérêt alors que njàngalem yàlla demeewul noonu même ba ci azaka ñoo ngi ko ceew ni yàlla jàngalee azaka ak ñuy doxalee azaka ndax def nañ ci vidéo vidéo cinquante azaka affaire jigéen ñi tamit gis nga nañ cay doxalee nañu yombalee fase ak yañ cay teg nga xam ne da ngay xool ne lépp soo xoolee day mel ni jigéen ji moom mooy perdante bi ak lu mën a xew te yii ay mbir la yu yàlla jàngale mu nekk loo xam ne maanaam sooy wax maanaam suñ borom rafetal mooy njekk googu nga xam ne moom lay wax ci aaya yooyu njekk suñ borom ni mu ñuy sàmmloowee njekk ci mbir njekk ni mu ñu koy sàmmloowee ci mbir ak gaa yi seenum njàngale su ñëwee moom ni muy tëddee lii nag mu nekk ay mbir yoo xam ne kenn ku ci ne na dem bàyyil xel boppam aaya yooyu xool solo si nga xam ne moom la am xool njàngalem yàlla ni mu tëdde nga xam ne ay mbir la yoo xam ne loo koy gën di bàyyi xel maanaam di gën a xemem yàlla sa borom di gën a xememaat diineem di gën a xememaat njàngaleem wuutee nag ay njàngaleem ay sunnisme ak xeet yooyu ñuy jàngale nga xam ne daanaka ay sos la yu ñuy sosal yonent bi lu ci bari ay sos yu ñu sos ginnaaw yonent bi yu ci bari loolu lañ tasaare ci àdduna bi loolu la nit ñi gëm di indi ay wax naan aaya bi moo abroger bi bii moo man bi te yooyu yëpp lépp di ay caaxaan dara lu ci diine kon wax dëgg yàlla macha allah sant yàlla ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te di leen baax te ñaan yàlla mu boole ñu jéggal jërë ngeen jëf